d'Afrique bi ñu ngi ciy am yaakaar bu baax bu ngeen di fàttaliku ñu bi ñuy ñëw di dugal suñu dossier sax daanaka ñoom pare woon nañu mais Sénégal dafa doon réew moo xam ni suñuy diplomatie dafa am doole te it Sénégal dafa am lu mu wone ndax ñu noon champion d'Afrique kon bu ñu nekkee champion d'Afrique ne dañoo bëgg a kooku foog ñu jël ñu au sérieux effectivement loolu moo am waa kaaf ñëw nañ fi gis nañ suñuy installation mën nañu wax ni réew yi nga xam ne bëgg nañ ko ji ci ëpp tey jii li ñu am ci infrastructure tey tey bi ñu ko doon organiser tey réew yooyu amuñu ko te it fii ak 2027 président ci xalaatam euh, am nañu plan boo xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre pour que euh, région yi nga xam ne ñoom ñoo war a accueillir compétition yi stade yi fa nekk ñu yokk seen capacité mais bu dul sax région yooyu am na un programme boo xamante ni gouvernement bi tàmbali na ko stade yëpp dinañ leen réfectionner